ñuy wax nag euh, si turu sunu kilifa district bi bu nekk Touba euh, docteur Mamadou Dieng jiite ko ah ñuy wax rek sensibiliser population bi si mbiru feebar mii nga xamante ne ni mu ngi ñuy bëgg ëpp loxo ndax bu ñu doon wax xew-xew bu am Chine ñu ne luy raam si ñag bi la jëm mu ñëw a ñëw a ñëw ñëw ba dugg biir Sénégal ñu naan ay expatriés ñoo ko fi indi ñu dema dema dem ba ñuy wax des cas contacts ñu mujj jigee ñuy wax na sax euh, problème bi xamatuñu c'est parce que communautaire kon dem na bay ëpp loxo loolu nag il faut que ñëpp jóg si anam yooyu nag la structure de santé de Touba ak poste santé Xayra di def des actions yoo xamante ni dañ ko jëmale si population bi ngir ñaax leen sensibiliser leen si taxawaay bu ñu war a am bu si jiitu moo di ñu fexe ba nit ñi toog seeni kër booy génn na nekk yittewu ñor di fexe it ba bu ñu génn tee di raxasu ndox ak saabu bu ñuy ñibbisee di raxasu ndox ak saabu loolu lu jiituwut feebar bi sax dañ ko waroon di def ndax feebar bi nu muy wàlle virus la virus bi dafay propagé wu say loxo nga noyyi ko jël feebar bi ci noonu lay indee gàllankoor loolu nag bu fekkee ne askan wi jëluñu seeni i motikaay dañuy dem ba fu feebar bi ëpp ñu loxo ci kaw loolu ñu xool réew yi nga xamante ñoo ñu ëpp doole. di am ay jafe-jafe mu am ay dem sax ay moor yoo xamante ne dañ koy compter par 600 lu demee ni ki Italie ay Espagne kon ñun ñi nga xamante ni nii suñ koom demewut noonu ah dañuy war a fagaru jëlaat ni mesure préventive yoo xamante ne nii population bi yëpp ñoo ci ànd. la nga xamante ne mooy ay xew-xew na ko soxna si wax léegi maa ngi koy sant bu baax a baax ndax euh, moo jiite association Bamba bi nga xamante ne nii ah dafa takku rek ngir Serigne Touba. ah di def ay action yoo xamante ni ñu ngi koy dégg boo gisee ñu boo tey encore ak àndal ak moom it dañ doon jàppale si ay sensibilisation ndax relais la relais la si biir euh, poste santé xayra bi kon bu dikkee am xew-xew bu mel ni di sensibiliser population bi pour lu xeex jàngoro bi kon dañ ciy mën a ànd ak moom moom moo waral tey ñu ñuy teew ñuy ñaan yàlla ah, yàlla dandal feebar bi boole kooku ñaan waaye boole kooku des mesures préventives kenn ku ne def ko see fi bopp xam ne feebar bi ça existe mu ngi jëm gën a law buñ demee ba ñun ñu yor santé bi nag ñu jaaxle a ah, problème bu ñu ëppee doole dafay delluwaat ci askan wi te bu booba ay loraange dafa ëpp. saa su am yu am solo yi bàyyi ko fii ci Rafah TV ak Rafah TV